nee nañ dañuy joxe yeneen bloc pétrole yi gis ngeen ba ñaari fan yëpp ñetti fan yëpp di génn ci presse bi Macky Sall balaa muy mun a liggéey ak nit il faut mu doon ku jóge bitim réew ba pare doon ab saay-saay boo xam ne condamné nañ ko am na dossier judiciaire ñoom Franck Timis ak ñoom Ovidi Tende rek ba ki ñuy mujjee tudd Camerounais boobu mu andi barki démb ñooñu rek la mun a liggéeyal parce que ñooñu ñoo mën a couvrir ay dil yi ñuy def ci suuf c'est ça la vérité est-ce que sénégalais dañuy continuer toog di seetaan loolu dinañu dellu si waxtaan ak yéen ci ay dossier keroog tudd naa dossier wu feeru Falémé bi xam nga nee naa leen ci conf ci meeting bi ñu demoon ne leen yor naa euh, euh, euh, nu mu tudd MOU bi ñu signé ba pare doon ko nëbb nag di ko nëpp nëppal yàlla def na nun nag du ñu dem fenn waaye mbir yi daf ñuy fekk si ndax Sénégal bëri na ay patriotes nee naa leen MOU boobu c'est un scandale bu ñu signé ak société bu ñuy wax Toysali euh, euh, yi une société turque Macky Sall jël na suñu fer yépp jaay ko te su ngeen mënoon xam li mën a def ak fer mu dem joxe ko ci anam yoo xam ne jox nañoo ñu exclusivité sur le fer Sénégal ay tabax chemin de fer yi mooy tabax yoon yi mooy fay intérêt bancaire yi kooku di leb ñu defar ko corridor vert mais loolu kenn mësu koo gis ci àdduna kenn mësu koo gis ci àdduna ba kañ la ñuy seetaan loolu fii biir Sénégal dinañ dellu si ci nouveau bloc yu bees yi ñu bëgg a attribuer ak anam yi ñu ko bëgg a joxe. dinañu dellu si ci yi nga xam ne junjoon naa ko keroog assemblée nationale mooy scandale yi am ministère des finances ak société bu ñuy wax ADAX par exemple nga xam ne 100 milliards la ñu caaxaane noonu mu dem yoonam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu bëri la yoo xam ne dinañ ñëw waxtaanee ko ak sénégalais yi. may daaneel nag ci wax Macky Sall laay waxal moom ci boppam parce que gis nga nguur dafa doy waar nit ñi dañ ko wër rek kon di ko daal di ko jay nag ne ko yaa fi nekk yaa yor nguur gi yaa am doole daral ci kaw diw ku la neex nga signé nguur gi day jeex te ci lu gaaw sax dina jeex gën saa gudd ñeenti at a ci des bu soobee kuy bind il temps mu delloo si xelam te rectifier li mu war a rectifier ndax li mu def xam na ko lu ko may fu muy mujjee moom ak ñi ko wër mu leen di defloo wala ñu koy defloo du baax ci moom de te ñii di ko jay ñépp nag bis bu wàccee ñoom lay mujjee gis nag am na fi ñoo xam ne ci ay journaliste ak ay chroniqueur rek ay homme d'affaires rek ay politicien bi Senghor nekk fii ñu ngi doon kalangaatu bi Diouf nekkee fi ñu ngi doon kalangaatu barki dem ñu ngi doon kalangaatu ci Ablaye Wade tey ñu taxaw di ko xas suba bu ma bu ma bu Macky daanoo ñoo koy njëkk a xas la l'exercice du pouvoir dafa am une part de solitude moo tax moom laay waxal moom Macky Sall waxuma calaw calaw yi ko wër di wax ku wax ñu yooxu saaga la na delloo si xelam ndax lu ko moy rek fii mu yóbbu nit ñi foofu lay mujjee moom te dina yóbbaale ñu bëri ci ñu ko wër kon na delloo si xelam rectifier pendant qu'il encore temps ñeenti at a ko dese lu tuuti la li mu signé te waru ko woon signé na ko renégocier resigné defaat ci lu baax li mu joxe te waru koo joxe na ko rectifier ñi mu àndal te ñu sàcc xaalisu réew mi ne leen jàpp teg leen ci yoonu justice moo gën tappale yi ñuy def loolu daal laa bëggoon wax maa ngi leen di gërëm di leen sant